jàpp leen ma jàpp leen ma yéen sax waaye li ma jàpp leen jàppal ma ci wala teg yi maam jaara maam jaara bu soo baali rayu baay la maam jaara maa jaara bu soobali royu maa ko moom maa jaara maa jaara bu soobali royu waay la mami Serigne Fallou royu kaay la maam jaara bu soo royu kaay la may la ko mu jàll ñëw leen nii ñëw leen ñëw leen nii yaayu jaara bu soo royu kaay premier daamu ngoog deuxième daamu kenn doo ko dugg. sëñ bi loo yow. parce que nit ma wax lii. loolu ci loolu Mbacke. muy loolu. muy loolu muy loolu. Mbacke la jox. d'accord nga. wala Maram ay sa maam Sadio maam Diarra Moussa Baye. Serigne Bamba ay sa maam. Mbacke Balla boo d'accord neex na. Mbacke Balaye sax. laajal mu validé. sëriñ Bamba validé màggal gi. sëriñ Bamba ñu liberté la. sëriñ Bamba ñu may ndam. sëriñ Bamba ñu may màggal gi. sëriñ ñu may li ñu am. sëriñ ñu may sañ boo validé lii validé na. boo validé feeda daam validé na. kon feeda daam validé na loolu ku ci mën dara laa <laughs> ilaaha illallaah waxoon naa léegi waaye ki ñëw fa mu waxate. dama ne dama ne fii nag fii nag fii nag léegi damaa bëgg a waxat. tabarkàlla fii moom. ku ma fi teewul kenn ma fi tee. fii. waxal waxal Thierno. xam nga xam nga xam nga bu nee la bu nee la nag waa ngi yaa ko moom yow la ñuy gën a leen nga ana ana ana biir beeg mbàq yeeg yooyu man man daluma fii ci kër gi su ma demee ñëw. waxoon naa léegi waaye nag bëri na daal moo ñëw. sa yaay ji baax ji jooytu na fekkuñu ba ki démb sa yaay bi mu jëndoo Ablaye Diop xaar dana la may sa ndey may sa baay tey waaye nag kin ah, doo xiif feere daam a ngi ni. waaye waaye xaas murit la waaye waaye sumbulu yow laa la de dama ne jom day dara jay bay di ko ci kër ci bokk dëgg de kër ci bi nga da xale waaye wàññiwu ko makum bàyyi mburi bàcc li mu baax mi si yaay baa njot na fekkul ba ki démb sa yaay bi mu tëddoo xaas dana la may baay may sa am nga jom waaye waaye nag ki di nekk buur la Kodou Samba ak Aïssata ak Fane mu xur a jaar joor juróomi ngeen sang si ba toog jàmm sa maam tax na mu di moo kokki wallaay jàngee sa kër baayam Samba Diop moo ko lay caamin Jolof dem cuurul jël doog ne ko maam Mara booy naan waaye bëgg ma waaye fam ma xas da ngaa judd yaay mbokk moo moo jox moo jox sëñ Bamba aji ci jigéen sëñ Bamba ne ko loo bëgg mu ne ko rek xanaa bëgg aj ragal sawar sëñ Bamba dañ ko jénki lettre yi bari ñu ne ko sama mag ju baax na mu ne leen Faari sa na leen kooku lu ma mos a wax a toog sama Mahfouz bi mu ñëwee suñ tubaab ko dugal su bamee waaye nag sama waa ji yaay yaay yaay yaay sénégalais ba nag bëgg démb bi nga mayee 200 euros bi moo ñëwee fii dama ne la doo cong doo congolais doo gën a yéen sénégalais bi yow xam nga ne yaa ma mën a dimbali yaa ma mën a teral yaa ma joxoon malade bi waaye nag du ma wax lim bi yaa yaa dugg Dubaay joxoon malade bi. soo ko bii maa ngi ci njëkk a yëg ren si boo jënd zéro kilomètre maa ngi ci ne si kanam ah nga nag man ana ngaa ma fu ne may nga ma euro. wax nga dëgg may nga ma CFA boobu yii xewagul. nga dëgg wax nga dëgg. kër gi fan naa ñetti weer yoo xam ne fi laay fan ci appartement man kese fa nekk. wallaay taal climatisé bi boobu yi xewul. nga am jom nag yàgg maa dimbali yàgg maa teral te nag ku la mës a ku la mës a tooñ bu duma ko waaye ku si nag may ko. yow koo war a a faral fee daam. am buur la. wax nga dëgg de. waaye sumbalu bàcc li. wax nga dëgg. première dame deuxième dame fere dame waa jaa ngi nii. kon Samba ak Aïssa ak Fatou mu xur a jot jot. Fatou Penda si kaa bi ngoon a jëy. gàngata maam ma nga Touba ne ku daw ñaaw ma xur gi biram fal ma dawraa nga jooy ko di Samba ay ti taag fan ma xur joor xaas da ngaa judd sa maam jàng kër bayam di ko ki Samba ay dor tudd moo ko lay caame nag Jolof dem cuurul jël donga ya dañ ko maam maaram moxtaarum ndaam bàyyi koo ndaam ngeen ma xuraja bàyyi koo mbaakool sëriñ ndaraame sa maam bàyyi ko ndaraame escale njaga Fatim Njaañ bàyyi ko Njaañ njaga sa maam nag sa sa xëringeer sekk ak gay sekk ak farimata sekk ñoo bokk ndey ak baay mu ko sa maam muy cënn farimata amadou farimata cënn farimata mu jur bata mbàkke mu jur ousmane mu jur aji malik bakari garamar aram loo kumba caam mbañ penda paate penda buguma penda xale la bopp joor aram bonko soxna njaay bu njaay faama yaay tiwaawoon yaay tuuba mu di faa ko ci sa maam dafa baax waaye yaay mbokk Cheikh Mamadou Mountakha Basiru la bàyyam tudd Fatou Modou Mamoun kokki ndigal isa Modou Fa Khoudia sa maam ak Balla Fa Khoudia mu tax ma sa maam sañ ci kokki xaas xam nga ne maye gouvernement bi waaye waaye xam naa la maa ngi ma ñaar fukki junni waaye di ma dolliwaat di ma dolliwaat ngoon maa ngi ñëw léegi xaas bu si la wax waa mbooloo mi Makbous lii lépp baax rek ko waral ndax jar naa kañ waaye ki dugg si jar naa way waaye ki dugg si nee naa xaas bu baaxee sumbulu roppi na ko ndax nit boo baaxee ba denc soxna su baax ku ñëw ku ñëw si kër gi mu dalal ko kooku nit ku baax la man dama ko jàpp benn bis Cheikh Abdoulaye Diop xaas bi mu toogee woo Serigne Aliou kon xasaayit ne ko damaa nam xasaayit mu tombeeg waxtu koor sëriñ Aliou kan woo jànkatu xasida yëpp gor su baax sii toog jëmm ju baax sii toog ki gëm sëñ Bamba ki wóolu sëriñ Bamba waaye den ak sangam bu baax bii ki nga xam ne Cheikh Masfou Cheikh Modou Kara Cheikh Ibrahim Cheikh Oballa Modou Oballa mu dëkk Oballa Fati Oballa nee naa ko bi nee na ki mën a dem daal samaam rek mën a dem daal waaye le 10 août 1895 la sa maam sëñ Bamba wàcc Mbàkke Bari nabbul yat nabbul karawas tegul cin gisul ku ko tegul naa ne foo leen ko fekk na ngeen ko jàpp indi ko ndar waaye sëñ Bamba sa maam moo ñeme moo mujj a woote ëppi donga surtout soorool gën juma yetti màggal yi ci moom màggal ko mag gi Cheikh Coroy maamam Balla Coroy maamam Xëri Mbàkke maamam Kumba Tay Bay maamam Anta Njaay Mbàkke maamam mbokkum sëñ Mbàkke soxna lu jagg mi si lu matar mi si kokki aali da ngay jàpp waaye sumbulu koroog bi ñu fi ñëwee danga def teraanga ju rëy te teraanga day suur as gor te bëgg koo gis yëgu koy fay kenn rek a bañ ko ko yëg ab sàcc te ab sàcc sax bu rawee gaa yi yëg ko ndax dañ nan ko wuu waaw waaye sumbulu koroog danoo ñëw nga ànd ak sa gor su baax si toog capitaine bii toog delinkool bi toog jàmbaar ji toog nee naa ko yetti jikkoo tax ma jàpp la te duma la bàyyi di nga dimbali nit di nga waxtaan ak nit loo am nit ñi waaye kii la jàppale. korog dana ñëw nga taaj xéewal yu bari nee naa ay misiw waaye bisaab boo xam ne bi ma ko naanee bi ma génn dama ni sumbul bisaab bi nan la ko defaree ba tey damaa nam bisaab bi kon dañuy jël kaddu gi jébbal ko xaas bu nu nappee sëriñ xaadim mi ngi ñuy toog sëriñ sëriñ Masamba mi ngi ñuy toog ndax Cheikh Abdoulaye Diop xaas nee na ñaar ñuy toog sumbulu sëriñ xaas dafa def rëy rakam baax ji daa ñëw ni ko xaas ni ko koy tudde doom ji mm-hmm. mu ko man wutumaw tur kooku tudde baax na mm-hmm. loolu teraanga gënu koo rëy kon nañ teelu xaas nee na mi ngi nuyu mbooloo mi yëpp nee na di leen masaw ak coono bii ngeen daj ba yegg si ci kër gi waaye di jiital ci nuyoo bi sëriñ Mahfous Mbacké mi toog nee na sëriñ bi ni mu ko waxee sànq rek. nee na papaam. di sëriñam. di sëriñam. di it sama sëriñ. di sëriñu Abdoulaye Diop Xaas. muy sëriñ Modou Kara. Mbacke Balla. nee na da ko woo. ko moom. woo ko moom. ni ko. ni ko. ni ko man kat sama doom nga. wallaahi ni ma yow yow moom Xaas.